ak jikko yu taar yi nga xam ne amee nañ ko njëkk ñuy dugg ci lislaam loolu lépp di la jàngal ne la bi borom xel yaa ko waroon sang yaa ko waroon ñooñu ko nanguloon doomi buur yi ñëwoon muy délégation yi jébbalul ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te jamono boobu ne rëy ci ñoom waaye teewul moom wàcc nañ ci kanam yonent noonu la ko yàlla ci mujjam moo muñ rek am solo loo muñ mu jeex wolof daan na wax ne ku mu muñ wolof daan wax ne loo mu jeex waaye dëgg la boo nekk ci dëgg daal foo nga muñ ndax àddina kër ak liggéey tool la tool mënu neex foo mu naqari ba neex baag fay ga waa kooku àllaaxira la waaye boo góorgóorloo ci tool ba bay lu rafet bu meññee daal bu neexul dana tene <coughs> yonentu nan mbir maa ngay meññi doomi buuri ñëw nañ ñëpp ñëw nañ ñu ngi ñëw ci délégation bi ci topp muy wax du naqa moo tax mu ne maa naqa ànd ak waa naqa ñëwal nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam <coughs> wafdu naqa mooy délégation bu mujj ñëwal yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si ñu njëkk tudd la bokk gaa waaye si bi nga xam ne ci rek génn àdduna mooy ba muharram amee fukki fan juróom bu mu atam fukk ak benn ci la naqaa ñëw mu weeru tam xarit ba mu ci atam fukk benn xelam ci la délégation naqaa ñëw ñeenti weer lañ ci teg yonent gi naat na sallallahu alayhi wa sallam góor wàcc ci këri gan kon yonent amoon na këri gan fan moo këri gan yi këri gan yi moo doon kër Ramlatu bintu Xaaris bokkoon ci banu Najaar saxaaba bu jigéen la këram la daan gan yi di dal mooy soxnaay Muaz bu Afra fa lañ wàccoon kër googu moo tuddoon këri gan bu ko defee nag ñu ñëwal yonentu sallallahu alayhi wa daal di jébbalu dugg ci lislaam ñoom waa naqa ñoom ñëpp dugg nañ ci diine ji gannaaw euh, fekk yonentu sallallahu alayhi wa sallam yónni woon na bun Jabal ca Yaman ba Muaz demee ci lañ jaayanteeg moom gannaaw ga nag ñu yónni ñaari góor ci ñoom ci yonent bi sallallahu wa sallam pour mu confirmer seen ak muy artaat bun sharaaxil bun kaabu ak juhays turam moo di arqam ñoom ñëpp ci waa naqaa bokk ñooñu ñëw ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñun dugg nañ ci diine ji nangu nañ ko jaayanteel seen seenaw nit ba leen yonentu xoolee sallallahu alayhi wa sallam niñ mel ak melokaan bu rafet bi feeñ ci ñoom mu kontaan ci ñoom yim leen lool yonentu ku bëggoon lu taaru la ku bëggoon nit ku dal la ne ndax bàyyi ngeen seen gannaaw ñu mel ni yéen ñooñu ne ko bàyyi nañ suñu gannaaw juróom-ñaar fukki góor yoo xam ne ñoo ñoom ñooñu gën lé mën nañoo def dara te duñ ñu xoo mën nañoo bàyyi dara te duñ ñu xoo ndax ñooñu sut foofu ñoom ni leen yonantu bëggee ak melekaan bu rafet bu ñu xam bu fekkee am na ñeneen ñu leen gën seen gannaaw kon xam nga ne ñooñu ay sang lañ yonantu ñaanal leen ne allahuma barik fi naxaa yàlla yàlla nga barkeel naxaa yàlla nga barkeel naxaa bu ko defee eh, fasal artaar moomu ab drapeau ne ko yaa jiite saw nit keroog fatu mag drapo bu moom la artaar artaar yore woon mooy drapeau waa naxaa drapeau boobu moom la téye ba xare xaadisiya ci lañ ko rey ma durée du daal di ko jël ñu ko sayf bun xaarisa bokk ci banu xuseyfa daal di ko jël dugg ak moom kuufa dégg nga drapeau boobu moom la yonent sallallahu alayhi wasallam artaar la ko joxoon kon ñooñu ñooy waa naqa ñëwal la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dugg ci lislaam gannaaw buñ jaayanteeg maas buñ jabal ci lañ yónni délégation ci yonentu sallallahu alayhi wa sallam gannaaw gu ñu ñëwaat jaayanteel seen bopp bañ ñëwee nag benn waaye si ñoom bu ñu wax zuraaratu bun amrin nettali yonentu sallallahu alayhi wa sallam gént gu yéeme goo xam ne gént na ko mu ne yonent bi sama gént gi sama tukki mi daal gént naa si lu mu ne ko loo gént mu ne ko damaa gis am mbaam mu jigéen maa ba gannaaw mbaam mi dafa mel ni ab sikket la jur bu xonq xonq bu rax ñuul mbaam mu jigéen laa gént mu jur sikket bu denga waa bu rax ñuulaay xonq boo xam ne fa rax ñuulaay loolu wax yonent bi sallallahu wa sallam yonentu ndax dangaa bàyyi soxna wala dangaa bàyyi ab jaam bu jigéen ca kër ga fekk mu ngi ëmb mu ne waaw yonent ne ko jaam am na doom doom bu góor te yaa ko jur loolu la sa loolu gént gi di firi xoola gént ni mais mais moom mbaam mu jigéen la gént mu jur si kët si kët ba yore melokaan boo xam ne xonq bu rax ñuulaay la yonent ne ko da ngaa bàyyi jàmm bu jigéen bombu sa gannaaw mu ne ko waaw mu ne ko am na doom sa gannaaw doom bu góor la am te yaay baayam mu ne ko waaw melakaan bu ma ci gis nag mooy dafa wuteeg couleur bi ñu yore ñun moom xonqam dafa rax ñuulaay yonent ne wax waa ji ne jege ma mu jege ko mu dee ko xanaa da nga amee jàngoro baras di ko nëbb xam nga loolu kenn du ko wax ci kaw moo tax musu dalaal ko nekkoon ndax da nga amee jàngoro baras di ko nëbb ne ko wallaay kenn musu koo xam ci man ku dul yow maa ngi gën ci yàlla mi nga xam ci dëgg damaa amee jàngoro ji waaye kenn kenn xamu ko ci man lu mooy yow ne ko waaw jàngoro baras jooju moo feeñ ci xale bi moo tax couleur bi mel noonu melokaan bi mel noonu yaay baayam li tax meloom soppeeku mooy feebar bi nekk ci yow moo jeexit ci xale bi mu ko xamaa naa beneen gént gu ma gént mu ne ko loo gént mu ko gis naa Noomaan bu Munzir Noomaan bu loon ci buri arab yi mu ngi takk ñaari jaaro ci nopp ya amee ñaari lam ak ñaari lam yoo xam ne dañ ko defaree gént googu jaaxal na ma li muy firi yonentu ne ko gént googu li muy tekk mooy ne nguuru arab léegi dëgër nañ kenn yilifatul leen kenn moomatul leen ñu ngi seen doyo teraanga rek laa wax xam nga noomaan buuri arab la woon boo géntee mu dellu si mooy nguur ak arab dellu si naa jamono boobu yonentu sallallahu alayhi wasallam dëgër na kon nguuri arab yi dëgër na waye nguuram mom sax yonantu nguru aduna ñep lepp la waji ne ko gént waa naa beneen gént gu yeme mu ne ko moy lan mu ne ko dama gis magat mo xamna ni lenn ci karaw ya dama wex lenn la ñuul manam be jawut mm-hmm. waye dal magat la mo xamna ni man nga ana be mu génn ci suuf si loolu jaaxal ma yonent ne ko loolu mooy wane li li des ci àdduna bëriwut màggat li des ci dundam ni tuutee mooy tolloog li des ci àdduna xam nga ne xale bu dund ba màggat xam nga ne li wéy moo ëpp li des màggat moom lam la bëgg a junj mooy àdduna léegi mu jeex li si des bëreetul loolu la sa gént gi di firi gis nga gis mu yéeme mu ne ko gisaat naa safara soo xam ne dafa génn ci suuf si dox sama digganteeg sama doom ji ñuy wax amru mënuma àgg ci amru ndax safara si yonentu ne ko sallallahu alayhi wa sallam loolu fitna la soo xam ne dana xew ci li ci mujj ak jamono faw mu ñëw mu ne ko fitna boobu ban xeetu fitna la yonentu ne ko am mbooloo muy dajaloo rey seen imaam loolay fitna ba mooy rey gi ñu rey Seydina Ousmane yonentu ne jamono boobu nit dana nekk ci lu bon yaakaar ne mu ngi ci lu baax xam nga loolay li gën a métti juum ba pare yaakaar ne yaa nekk ci dëgg kenn mënu laa jubal ñeere Ousmane lañuy def lu ñaaw la waaye dañuy yaakaar na ñu ngi ci lu baax kon foofu wane na ne mbir mi du doon tayef am na si ñoo xam ne yow yaakaar ne lu baax la ñuy def yonentu ne loolu dana am mu ne ko yow boo fekkee fitna boobu sa doom du ko fekkee dana dee balaa boobu bu ko sa doom fekkee yi def doo ko fekkee ñaar daal foo kenn dee ci loolu mooy dox gi dox si diggante xarit ndeysaan ndeysaan yëpp dégg ay gént la yu yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam koy mu koy firi dégg nga Zuraaratu bun Amru moo ko laaj mu ne yonentu ñaanal ma yàlla bu ma ko fekkee ndax firnde boobu kay fekkee ko baaxut yonentu ne yàlla yàlla bu mu ko fekkee moo tax moom mu dee balaa ñu ne Ousmane dee na mooy am lu bun zuraara ba màgg ci ponka yi nga xam ne ñoo njëkk simmi Ousmane ibn Affan ne nekkatul xalifa ci la bokk moom am moomu ci njëkk a wuteeg Ousmane njëkk koo simmi ci la bokk di dëggal li nga xam ne yonentu waxoon na ko ne ko benn yow nga fekkee ko wala sa doom fekkee ko looloy safara si nga xam ne wax na <clears throat> sa digganteeg sa doom jooju ndeysaan moo tax gént daanaka mën nga wax ne message la bu yàlla di sànni jaam rek di ko xamal ci nga xam ne nii mu ngi war a ñëw te ñëwagul benn nga mën koo tekkil sa bopp parce que ci cax espèce ci cax lay ñëw wala doo ko tekkil sa sa bopp su ko defee nag mu ne wafdu xaaris ibnu kaabin ak délégation xaaris doomu kaabu ashaimi kaa ji ñëw gannaaw délégation naxa délégation xaaris ibnu kaabu ñëwal nañ yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dafa yónni Xaalid ibnu Walid ci weeru rabiul axar wala jumaada ula ci la yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi ñu ñëw ñëw gannaaw ñeenti weer yonent bi gën a àdduna du du naqaar dama jum ci naqaar ñii seen gannaaw rek la yonent gën a àdduna yonent dafa indi Xaalid ibn Walid ci weeru rabiul aaxir wala jumaada ula wuti nañ ci ban weer caatam fukkeel ma jëm banu xaaris bun kambu ca najaraan mu digal ko mu xooleen jëm ci lislaam ne ko bul nang leen xoo pour ñu dugg ci diine ji buñ nangoo baax na buñ nanguwu na xeexal ak ñoom ci la dem ba xegg ci ñoom tasaare mbooloom ya ñuy xoote jëmee ci islam ne yéen nit ñi leen na ngeen mucc gaa yi ñoom it dara ñu ngay dugg ci diine ji rek wuyu Xaalid Xaalid sax diir di leen jàngal lislaam gannaaw ga mu bind yonent bi leetar ne ko gaañi jibul nañ dégg nga ànd ak seen délégation yi ñëw ñëwal yonantu délégation wa xeesu bun Xuseyn ci la bokk ak Yazid bun Muhajjal ak Shaddaad bun Abdoulaye <coughs> bañ ñëwee yonantu xool leen sallallahu alayhi wa sallam ñen ñooy gaañ yi nga xam ne dañoo mel ni góor yi jógee Hind xém leen ndax seen melokaanu rafet ñu ne ko ñu ñooy banu Xaaris bun Kaabu ñu daal di nuyu yonent bi ne ko ñu ngi seet ne yow yonent yàlla nga yàlla rek kay buur it yonent ne man maa ngi seet ne yàlla rek kay buur waaye man yonent yàlla laa mooy leen yéen yeneen ñi nga xam ne buñ leen soññee rek ñu ñu avancé ku leen soññ ci xeex rek ñu song la gaañu noppi yonent laaj leen ko ñetti yoon Yazid bun Abdul Madan daal di tontu gannaaw ñeenteelu laa ak yonent yonent laaj ne ñetti yoon ñu noppi ñeenteel bi mu laaj rek yéen tontu ne waaw yonent bi ñun ñoo ñi nga xam ne boo leen soññee ñu ñu avancé song la moom wax ko ñeenti yoon bañ bàkkoo yonent ne wallaahi bu du woon Xaalid ibn Walid na ma leetar ne jébbalu ngeen xeexu leen ak ma dagg seen bopp yi sànni ko seen <laughs> ron tànk yi rek laa. <laughs> waaw ngeen jàmbaar jàmbaar. fekk ngeen fi ko leen gën a jàmbaar islam lépp fu daje Yaziid bu Abdul Manaan ne maa ngi gën ci yàlla ñun gërëmuñ la gërëmuñ Xaalid yonent ne ko kon ku ngeen gërëm mu ne ko dañuy sant yàlla mi nga xam ne moo ñu jubalee ci yow yonent ne wax ngeen dëgg yàlla yàlla sant waaye xam nga ne yonent bi delloo nañu sant ko rek laa leen lan moo waral képp ngeen mos a ci ak yeen jaahiliya noot ngeen ko dégg naa yeneen mbooloo mi nga xam ne mos leen a song kenn lu may euh, euh, not ngeen ko ëpp ngeen ko doole lu waral loolu ñu ne ko ñun ay notuñ kenn mos ñoo kenn not ko yéen ne ah kay daa ngeen ku ngeen mos a xeex ngeen ko doole not ko xëy na dañ doon wàccee seen bopp parce que wax nañ bu njëkk rëy rëy rëylu yoon soon seen tontu fukki bu ñaaree ñu wàccee seen bopp mu ne ah kay da ngeen noon not képp ngeen xeex ak lu waral loolu mu ne ñun mbooloo moo xam ne foo ñu fekk ñu ngi ànd duñ tàqalikoo bu mukk mbooloo giñ nekk mbooloo nekk benn looloo ñu may doole te duñ tooñ mukk dañ dañuy tooñ ñu fay waaye ñun duñ commencé tooñ te duñ néewle bay sàcc wala ñuy wërij kenn si ñun du am lu bëri bañ ko ñaañaane wala di werante moom lii moo ñu dimbalee te buñ dajee ci xare dañuy muñ jikko yi moo tax kuñ xeexal not la benn lañ duñ tàqali ko néew la duñuy tax a caarik ndax mbooloo buñ tàqali ko doole ndax kenn par kenn moom not leen yomb na waaye mbooloo mu taxaw not ko kooku yombut ñoom la leen dimbale mooy foo leen fekk ñu ngi nekk mbooloo duñ tàqali ko waaye it ñi nga xam ne lu lu métti métti nga ànd ak seen ngor ñoo ñu xam nga ne kenn du leen mën a yàqalit ndax bu fekkee bu méttee rek caare gi xam kon dana am ñoo xam ne bu méttee ñu seet fuñ dugg ñu tàqali ko mbooloo ma ngir intérêt àdduna waaye ñoom loolu dalul leen moo tax kenn mun leen not lii tas mbooloo yëpp bokk na ci mu métti rek ku nekk di wuti sa wàlli bopp loolu dana tas mbooloo waaye ñoom loolu dalul leen bokk na ci li tas mbooloo it añaanante ko am dara ñaañaane la dégg nga utal lay jikko yoo xam ne wóor na leen ne du jikko waa bi dagg santeg yow di ween te dara warlu ko lu may añaan loolu dana teqale ay nit waaye ñoom loolu dalul leen lu waaye am ci ñoom rek yéene nañ la bokk na ci luy néewal doole mbo nit mooy tooñ ndax ku tooñ yàlla du ànd ak waaye ñoom duñ tooñ mukk xanaa ku leen tooñ ñu fayu bokk na ci lii néewal doole mbooloo bu bu xare jotee nga daw waaye ñoom dañu laan muñ ci xare bañ waxee yonentu ne jikko yi moo tax kuñ xeex ak not la ne wax ngeen dëgg sallallahu alayhi gannaaw ga nag ba nga xamee ne jaayante nañu yonentu moom wax du xaaris bun kaabu yonentu fal ci ñoom xaysu bun xuseen daf ko muy seen amir muy seen buur ci dellu nag seeni dëkk ci sawaal wala zil qaada hmm? xam nga ñeneen muharram lañ kon ñee ñoo mujj ñëw ñu shawal lañ dellu wala zil qaada weeru xor yi dégg tabaski ñëw tamxarit doo ñëw kon ñee weer tuuti rek lañ teg yoonu tuggee naat bi waaye ñii si shawal lañ dellu wala zil qaada ñeenti weer lañ toog rek yonentu génn àdduna sallallahu alayhi wa sallam weer bañ delloo ñeenti weer dañ am yonentu génn sallallahu alayhi wa sallam waaye balaa yonent bi génn àdduna yéen ñoo ne si Amru bun Hazm pour mu jàngal leen seen diine xamal leen sunna ak mboolem li nga xam ne ku dugg ci diine ji war na koo xam te jël azaka yi loolu wane na na bu ànd ay taalibe ku ne war na leen jàngal seen diine bañ xam lépp loo xam ne jullit war na ko xam xam ni ñuy jàppoo xam ni ñuy jullee xam santaane yi leen yàlla sant ak lim leen tere loolu muqaddam bu ne wax na ko jàngal ay taalibam de waaye muqaddam ba réer taalibe yi réer waxi la ñuy wax loolu xam nga ne gàcce la rek laa ah, da ñooñu mbooloo moomu sànkute ak ak seytaane lañ gën a jege ci yàlla mbooloo moo xam ne muqaddam ma xamut ba pare nanguwul ne xamut rëy naa wut sax kur ku jàngal taalibe mi dégg nga te moom jàngut taalibe jànguñ ñu nekk di wax waxi baatin rek waxi baatin googu bu seytaane sànnee dara seeni xol duñ ko xamee dëgg duñ xam dëgg raam du dëgg ndax jànguñ xamul dara noonu la dem ba yàq seen kii seen diine yàqum ñu dugg ci kéeféer te yëguñ ko yàlla na yàlla musal ci loolu ab sëriñ daal dafay jàng boo jàngut nga wut ku jàng mu jàngal la jàngal sama mbooloo waaye jàngoo nañ ngaa jàng ma ne musiba rek de yow seytaane nga ci yàlla bàyyi daan na wax ne dara solo la ñu lu mooy sëriñ nga xam ne jànguñ noppuun waaye sëriñ si dañ jànge wala ñu noppi kooku nag ku koy ndamoo ku wala nga noppi ah, wax jàngoo wax mën naa nekk saba bilaam jum nee na bàyyi nee na jàngoo tari fen rek hmm. <laughs> ma ne fen rek moo tax fen yi bëri hmm. ñu bëri dañu bëgg a tari te jànguñu masala mu xew ñu génn nañ ci waxta xam nañ ne xamuñ dara seen i taalibe xam nañ ne sëriñ bi xamul dara <laughs> waaye nag yow daal lañ jiite rek tax lu lu xew nga ne da nga ca waxta xamoo dara borom xam-xam yi sax wala laa tontu na <coughs> xam-xam ma ne borom xam lañ ci soxla waaye ku jàngut xamoo bu masala ñëwee noppil la nga xam xam ak néew nag ci mbaax kooku mën nga wax say foofu te sant leen ñoom foofu xaatir bu leen roosal dikkal leen ngeen laaj ko seen sëriñ bi nga xam ne xam na mu dëggale leen ko ngeen door ko wéyal bu dul loolu bu leen ko wéyal ku jàngu noonu la war a doxee waaye jàngoo lu ne nga ne danga ci wax moom la yonent doon wax sallallahu alayhi wa sallam yàlla du rocc xam-xam ci dënn yi waaye yàlla bu bëggee xam-xam jeex borom xam-xam yi la fi jëlee ñu dee su borom xam-xam yi jeexee ñu réer rek ñoo des ci kaw suuf boobaa nit ñi mun ñoo ñàkk njiit dañuy wut sëriñ su réer sëriñ soosu buñ leen laajee danañ tontu ndax ñoo nekk ca kanam waaye la ñuy tontu du nekk xam-xam su ko ñu daal di réer réeral loolu xam nga ne moo fi bëri léegi. borom kaala gu rëy borom mbooloo mu te liif nekku ci bopp bi ak affaire bëri te loo leen laaj jo wax nag rus nañoo jàng rus nañoo jàngaloo seen taalibe loolu suñ problème. yàlla na yàlla dimbali hmm. mbir mi xañu neex de ndax ñaareel bàyyi ñooy man doom ñaareel sëriñ si ñooy man taalibe yi fan lañ jëm su fekkoon ne doom ju juddu rek ñu ne ah, kiis ka rawul bàyyam xanaa rek fi nekk waaye daa mel ni moo raw bàyyi konoon xel dal su fekkoon ku jàng ci sëriñ rek danañ dem ba ne ah jiw mii la léegi est ce que mënul sëriñam temps tegg fi nekk rek waaye daa mel ni moo mën sëriñam boobaa xel dal waaye daal fekk kilifa yaa ngi faree kaw ñañ yilif rek kooku xel dalagul xel dalagul bu fekkoon ni xam jaral na nit ñi ngir dimbale lislaam rek xel dal waaye xam ngeen ne ñun jàngalekat yëpp léegi dañoo tiit ndax nit ñi ko marchandise lañ ñu def ku nekk ku ñëw ci yow sax da ngay ne kii fu mu jaar ba dinaam baax rek lay wut waaye wutul xam-xam kenn nanguto yàgg ci wutam xam-xam te xam-xam wax naa ne pour nga am ko juróom benn yi foofu mu ci yow bu juróom yi dajee wut ci yow sa sëriñ lu mu la yéene yéene ak lu mu bëri bëri xam-xam lu mu am am pédagogie si jàngale am mu am xel ku gàtt xel mën na xam dara gaay nag mu nekk kàngaam ci diine hmm. faw mu nangoo góorgóorlu ku nangutu góorgóorlu di jàng ko kenn mënu koo jàngal te xam ngeen ne tey jàngkat yi nangoo góorgóorlu bëriwuñ ñu bëri dañoo tayal faw mu xiit ci wutam xam-xam nga xam ne fànn bu mu xamul rek xel maa ngi ca darsu bu mu jàng naan ma Alioune Mazide ndax man nga maa yokkal beneen waaw te tamit du nangoo romb bu mukkulum déggut te lu mu paase it fu mu toll mu koy nafar na bañ mu rëcc loolu mooy xiir mooy li la raw doo ko nangoo fàtte fi nga toll yaa ngi teg sa bët ci kanam darsu bi nga yore it yaa ngi ni ngeen gaaw mokkal ko pour jël beneen fànn boo jàngagul yaa ngi naan kañ laa fay egg waaw saas kañ laay jàng fànn nangam góorgóorlu nga ne bu ma góorgóorlu jàng ko ñu ne waaw rek nga gaaw góorgóorlu dem egg fa xiir googu mooy maye xam-xam nga xam ne nu ne danga ko def masala bu fekk xamoo ko doo am jàmm fu ne da nga fa dugg laaj booboo mën a am xam-xam xam ñu mel noonu léegi bëreetuñ su ko defee it foo nga bu mën a jàngale oustaz yi mën a jàngale léegi sax mën ngaa dem ci barab jàng bañ ne tafsir nga oustaz ba seet yàlla génne la ba pare te yow xamoo tus xam nga ne oustaz boobu la oustaz moom balaa mu laa la ne man maa ko dafa war a fekk ngay kàngaam waaye bu la génnee te xamoo am na si responsabilité kooku jàngalewut faw nga am mooy jamono tey dafa am lum laaj mënoo ne da jàng te doo def dara faw fere yi nga xam ne nii moom la jàng mi laaj nga nangu koo def loolu ko def léegi bëreetuñ mën nañoo fere ci école français yi lu ne waaye di école yi diine yi moom xalaatuñ ci def tous boo xañee ne ustaas bi la bëgg xaalis bàyyi xale bi du am téere du am dara doo ko toppatoo ci njàngam te lekk gu ne nga jëndal ko ko mel ni ab lekk tax nga yóbbu ko ci daara ja xam nga ne loolu jaaduwut bu ci mujj mooy nga yàgg ca waaye da gis ni ñu ngi organisé bu jàngee fii ñaari at nii nangam dem ti école ba woon na école ba jëreewut fa xam-xam def nangam dem réew sàngam bu ñëwee mën a jiite jumaa bàyyam ja xam nga ku ñuy jàngaloo naa jiite si jumaa bàyyi ku nekk si jumaa ji nga fiire ko ndax moo la taxoon di jàng kuy jàng ndax mën a jiite mbooloo ëllëg ku nar a jiite mbooloo mi ku dul yow nga soxore ko waaye kuy jàng dafay jàng ngir xam-xam rek boo xam ne moom dana ci gindeekoo ba pare gindi ci képp koo xam ne yàlla dogal na mu gindeekoo ci moom waaye wutu ci benn nommu tànk ci benn daraja yii kum dajee ci yow mën am xam waaye yii kum dajee wut ci yow kenn mënu ci yow dara mu tax jàngalekat yi wallaay xam ne buñ bàyyee la bàyyi ñaaw moo leen tax a nekk ci waar waaye léegi-léegi ñu bëgg gedd sax dem nekk ci leneen ndax jàngkat yi bëreetuñ léegi hada in uridu lislam wastatuma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu